مولانا هو سرنا هو نورنا هو مجدنا وهو المشافع عند يوم خصام مولانا هو سرنا هو نورنا هو مجدنا وهو المشافع salaamaaleykum mbokku téléspectateur u Malikia TV leeru Maodo ñi ngi tey euh, fii ci Tivaouane toujours di ànd ak yéen lépp loo xamante ni mi ngi xew fii ci Tivaouane ñu fas yéene nag jox mbokku taalibe ay t-shirt yo xamanteni Malika Malikia TV à travers son directeur général et toute l'équipe de la télévision Malikia TV leeru Maodo fas jox ñi nga xamante ni ñëw nañ ngir ziar ak lépp lo xamanteni gamu gi laaj ko indi leen fi ñu ñun tamit jox leen ay t-shirt yuñ mën ci gamu gi kon nak ñu and ak yeen dox ci lolu nga xamanteni mom lañu wara def ànd koog suñu mbokk yi nek wa Koskas ñu di dimbali ci liggéey bobu kon nak ñu dox and ak euh, pèlerins def distribution de t-shirt جزيا يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي Serigne ñu ngi lay nuyu di la ziar est-ce que yaa ngi xool Malikia TV leeru Maodo. maa ngay xool maa ngay suivre bu baax incha allah. naka nga gisee télévision bi. neex na trop neex na trop mi ngi yeete lu bëri lu bëri lu bëri macha allah. Euh, jërëjëf Malikia TV moo la offrir lii ci gàmmu gi. waaw ah, kontaan nañ si moom kontaan si mom lu baax lu bëre bëre yàlla yàlla doole xéwal bu wér a wér. ya ilahi wajziyan abada sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ziar noo gisee Malikia TV leeru Maodo. waaw ah, Malikia TV moom di leen di sant di leen gërëm quoi seen liggéey rafet na trop si gàmmu gi durant préparation ba jour bi yëpp moom macha allah ci kaw ci kanam rek kontaan nañ ci yéen macha allah ñun ñëpp. jërëjëf. yaa ngi ànd ak la télévision Malikia TV leeru Maodo fii ci Tivaouane tey ñu offrir la sa t lan ngay wax. di am contentement di am contentement bu rafet di di rafetlu yow sa liggéey ci barki sëñ Babacar yal na yàlla guddal seen fan parce que lépp lu ngeen def rek yiw la ndax yow dafa am mission booy doxal ñu lay gis ci internet bi yal na yàlla guddal sa fan kontaan nañ bu baax. kon mbokk yi ñoo ngi fii ci Tivaouane fas yéene joxe li nga xamante ni ñooy t-shirt Malikia TV ak mbokk pèlerin yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Tivaouane jox ko Serigne yaa ngi ànd ak la télévision Malikia TV leeru Maodo fii ci gàmmu nga sol sa t-shirt. pour assister ci Maodo ñun Maodo lu ñu woo rek sawar nañ ci ndax ci sunna rek la ñuy woo ak diine ak bëgg gu mu bëgg rasulullah tax na lu mu ñu woo rek ñu wax ci télé bi. waaw télé bi yàlla na ko yàlla jëlee kanam liñ koy seetaan sax fii. ñooñu ñu ngi ci. Euh, Malikia TV leeru Maodo mooy jaxe ay t-shirt ci gàmmu bi. ñu lay laaj sa tax naka nga gisee télévision. ah sant yàlla bu baax baax di wax daal ñu ngi sant yàlla bu baax baax ci barke Seydina Muhammad. yaa ngi yàqamti ci rang bi. في الدم قال السلام على النور المنير بعد يا عبد مطلبين في ظهرك الكرم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار سيدي الحاج مالك وأبا يدعو إلى البيت مبتئلا لنا أن يبنى ñu ngi nii taxaw ak euh, kenn ci njabootu Cheikh jox ko t-shirt am ñu dajeeg moom fii ci Tivaouane di ko laaj naka lay gisee la télévision Malikia TV leeru moom. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñoo ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa salaam di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu yàlla mayee ñu dellu si waat di ñaanal xalifa bi sëñ Mansour sëñ euh, Babacar Sy ak i rakkam ak njabootam yëpp ak julliti yàlla yëpp. naal bi mu sumb ci jumaa ji yal na ko yàlla eggale te mu jiite ko yàlla bu dara kii gannaaw ñoo ngi am kontaante bu baax a baax a baax li tax ñu ñëw nag mooy ni ko Maodo jàngale mooy suñu sëriñ di suñu lépp mu ne moom ci moppam Sénégal fii moo fi njëkk a yeesal mawlidu nabii sallallahu fii ci Sénégal moo fi njëkk a yeesal mawlidu nabi moom ak taalibeem bu baax boobu muy maam Rawxaan waaw ca Ngàmbu Cile muy jàng alquran ñu jàng alquran lan mooy gàmmo mooy jàng alquran salaatu ala nabi dégg nga de berndeel mu ne allah waawee asi moo màggal leen laylal wilaadati guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee àdduna xisbatan ngir fàggu yiw waaw xisbatan ngir fàggu yiw kon loolu moo tax nag ñu ñëw mu del allah azimoo laylal wilaadati isaa lam yakun naxwal araami hudoolun mooy nañu màggal guddik sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndem lu araam amul ci waxkat ba nee na maanaam màggal juddu yonent bi al ixtifaalu bi mawlidi muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa yaxtaaju ila xadisin saxihin màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxlawul xadis bu wér bal wala walakin wante yaxtaaju bi qalbin saxihin magal juddu yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam, xol bu wer mom la soxlo mais soxlawul hadith bu wer deug la Serigne way ñu di la laaj naka nga gisee television Malikia TV leru maw ah contane nañ ci bu baax ndax bu ñu nekkee ndar dinañ leen di seetaan dañ leen di japp bu baax ah, di leen ñaanal gudd fan bu and wer gu yaram ndax yéen ngi bu baax ci barke yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. Serigne yow tam yaa taxaw ànd ak Malikia TV leru Maodo defena ni yang koy suivre. waaw man yàlla def na maa ngi tudd sëñ Babacar Sy ñu tuddee ma Khalifa Malick man ca laa dëkk di jaay ay télévision Malick yaa ñoo ngi koy seetaan bu baax a baax ànd ak suñu sëriñu daare ji baax ji kontaan nan trop si liggéey bi liggéey bi rafet na trop xoolatuñu beneen télé seetaantuñu beneen télé amatuñu beneen télé lu dul Malick yaa TV mooy suñu télé mooy suñu télé guddeeg bëccëg fi la ñuy seetaan moo ñu yee di ñu wax lu ne lu ñu xamul woon di ñu wan image yu yéeme ci Maodo yàlla nañ yàlla jëmale kanam ci barke Seydina Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Malika mi ngi fii di jaf ay euh, t-shirt di ko maye ngay romb ñu jox la sa bos bàyyi la nag nga wax taxawaay Malika naka nga ko gisee. ah alhamdulilah rabil alamin Malika moom vraiment li ñuy wax ci moom rek mooy Tivaouane yëpp kontaan nañ ci moom ndax tamit àdduna moom euh, communication la te dañuy wax ni kii détient la communication détient les masses te ku jë détient les masses détient li nga bëgg a am yëpp di nga ko am te Malika vraiment dafa yéex a ñëw ci sunu biir communauté ndax bu njëkk rek dañ doon seet si yeneen télévision. di leen sant ay liggéey mais Malikia bi mu ñëwee dafay liggéey avec désintéressement lépp lu nga xamante ni euh, euh, euh, dafay xaw ci xadara bi Malikia dafay jël en boppam en charge dem ci moom teg jël ko def ci reportage yamul ci loolu ba pare mais daf koy fësal yamul rek ci biir xadara bi Malikia dafay liggéey ak communauté yëpp même chrétiens yi sax Malikia dafay liggéey ak ñoom ndax Cheikh Abdoul Aziz Al Amin moo leen ko waxoon ne leen liggéey leen ak ñëpp. ki ngeen warul liggéeyal rek moo koo xamante ne yàqkat la mais képp ku nekkul yàqkat rek liggéey leen ak moom moo tax loolu nag vision wu président Malick yee la muy sëñ Matar Ndiaye Al Amin kon vraiment ñu ngi koy nuyu de passage di ko ziare tamit ci gàmmu gi waaye di wax ne équipe bi yëpp vraiment communauté bi yëpp moo xam euh, euh, euh, fédération yi la moo xam kiraam yi la moo xam daayira yi la moo xam association yi la moo xam mbokki taaliba yi nga xamanteni sax bokku ñu ci yoy yëpp ñu ngi ñëw nga sopp Seydil Hadji Malik ñom ñëp bëgg bopp bëgg nañu ci Malikia TV waaye mention spéciale nak à Mamadou Mboup mi nga xamanteni tay ben benn la ben ben benn benn émissaire la bu nga xamanteni dafa melni mam Seydil Hadji Malik daf ko créer rek muy ben jeune bi nga xamanteni daf koy régler lu bari bari bari yàlla nga yàlla guddal fanam zaire ci batine mom dafa bax nak mom dafa ba motam waxe lol wa ah waaw taxaw. bëgg naa leen te yàlla tax baat bi dafa dee. yàlla suñu yaay booy la ñu war ko jox t-shirt am nee na soppe rek moo tax mu taxaw fi ndax Malika lay xool guddeeg bëccëg kii boo demee nga jox ko sa sët. ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla taxawaay bi yàgg. Malikia daal mënuñu koo fay moom la nuy bége moom la nuy seetaan moom la nuy déglu yal na leen yàlla jàppale lu ngeen ci man ren bu déwénee yal na ngeen man julleem ci barke Seex Sidi Haaji Malik dara ji yeneen bi yàlla boole nu ko julli yëpp ak doomu aadama bége nañu leen gërëm nañ leen sant leen. nga ñaanal euh, président Makhtar Ndiaye amin président Makhtar Ndiaye al amin dama koy ñaanal ndax ñoo bokk baay man sëñ ab Sam baay mooy sama baay ma bëggalan ko sama bopp yaakaar ko tey ak ëllëg kon dama koy ñaanal ñaanal sama bopp ñaanal leen yal na ko yàlla jàppale dëgëral ko guddal fanam yàlla boole na ko ci barke sëñ Babacar Si jërëjëf kii boo ko déggee nga xam ne xaal lay waxe dafa kontaan taxaw na xaar ñu fi lu yàgg saan pour ñu waxtaan ak moom kon mbokk yi ñu ñu avancé nànk-nànk Ah, ñi ngeen may nak jigen ni ñu am sen sen sen parti fi xatna metti na way nak liggey la waaw kon joxal mako ben t-shirt waaw soxna si naka nga gisee malika TV leeru mawdu waaw neex rek dara léegi réeratuñu léegi moom macha allah ci kaw ci kanam rek du yomb de gaay mais <laughs> nonu la eh, gi yaangi ci malika TV leeru mawdu ah waaw tawarkal xana wax sa t-shirt ni ci gamu ren Malika di offrir cadeau mbokk taalibe yi. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. Malika TV moom vraiment mënuñu leen a fay. gis nañu ni ñu taxawee euh, gàmm gi. ndax fépp waay nekk rek seen kàddu ak si na fa. parce que man avant may ñëw rek seetaan naa lépp ci burdu bi ci moom laa ko seetaanee. kon toor kàlla macha allah. serigne yang ci malika TV leru Maodo naaj bi tang na metti na waaye ñu dajé par hasard rek ñu jox la yow it sa cadeau ci gàmm sant ñu bayila nga wax ci Malikia. sant yalla rek Malikia télé bu bu am solo la wax deug yalla lepp lu ñu soxla si leru Maodo Malikia mi ngi ñu koy jox wax deug yalla di contane bu baax ci Malikia TV. yow fo tuddu no tuddu ak fo jóge. jak Seck la tuddu ma nga jóge ba Ross bejo waaw jërëjëf kon Malikia mi ngi ziar wa Ross Béthio nga joxal ñu len suñu waaw sëñ bi maa ngi leen nuyu ku si nekk sa tur sa sant man maa ngi tudd Aliou Ba ba Zac Mbao ñëw fii si ziare si gàmm gi quoi ñu ngi sant ñu kontaan nen dañ fee gëj a ñëw moo tax ñu ngi sant bu baax a baax di ñaanal suñu sëriñ yàlla may ko wér gi yaram saxal ko si suñu kanam lu bëree bëri bëri bëri. naka nga gisee télé bi. Ah, bi moom macha allah macha allah moom rek la ñu siiba macha allah kontaan nañ ci bu baax a baax. Malikia TV leeru Maodo moo la jox t-shirt bi ci gambu gi cadeau euh, di la laaj rek naka nga gisee la télévision Malikia TV. une fierté nationale internationale. j'ai envie de pleurer même bima ma gisee télévision yi ñu daan jël ay clé diko def légui da ngay taal Malikia TV tiatu je suis de Dakar mais ma ngi liggéey Kaolack wétatuma te des milliers et milliers de personnes ñoo nek à travers la télé Malikia TV xamoo leen sax ampleur bi ngeen def si nit ñi. fi ngeen ñu tegale zikkar fi ngeen ñu tegale waxtaan diina jaa ëpp alaaj maar yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal avec cette haute température de la chaleur malgré tout tenir nañ lépp te dinañ ci def lu ñu xam ñu si kontaan jërë ngeen jëf jërëjëf

waa gis nga naka nga gisee télévision bi. waa macha allah donc télé bi duñ koy ñaanal. Euh, en tant que taalibe. wax dëgg fa yàlla mën naa ne dañ ko soxla woon. dëgg fa yéen a ngi def nag seen kentulaay kàttan. ñoo ngi leen ciy ñaanal. bu baax ngeen jëm kanam. wax dëgg fa yàlla ñoo ngi seetaan gis nañ burdu bi bokk. topp leen ci burdu bi ñun ñi nga xam ne surtout ñoo ngi dakaar wax dëgg fa yàlla accès bi nekkoon lu mu xaw a metti wax dëgg fa yàlla ñoo ngi doon seetaan Malikia ba nga xamante ne wax dëgg fa yàlla ñoo ngi doon si gis suñu bopp kon nag mënuñu rek lu dul rafetlu seen taxawaay di leen ñaanal ngeen jëm kanam bu baax jërëjëf euh, Serigne affaire bi nag yombul noo gisee télévision bi. waaw macha allah boo gisee sànq ba léegi ma topp leen mooy dama koy suivre euh, maa ngi lay wax ne maa ngi jugee Jolof ci réewam am alxaaji Daouda Dia mi nga xam ne moo nekkoon mu xaddamu Seydi Xaaji Malick ñun foofu mën naa wax ne bourde bi yëpp mën nañu wax ñëwun Tiwaawoon waaye dara leeru dara dawuñu si ndax Malikia TV moo tax ñu ngi leen di ñaanal bu baax di ñaanal seen président. di leen sant di leen gërëm El Hadj la dëkk dëkk bu ñuy wax Gouloum bokk ci département Linguère macha allah jërëjëf. Serigne yow fekk naa la nga sol sa bos ba pare yaa ngi ci télévision Malikia TV leeru Maodo est-ce que yaa ngi seetaan télé bi. waaw télé bi wax dëgg yàlla ñu ngi koy suivre bu baax a baax parce que mooy sunu télé quoi Malikia TV moom toujours ñun waa Mboro ñu ngi seetaan bu baax a baax. ñu ngi dikk teewoon nag fekk leen fi wax dëgg yàlla waaw ñu koy sant yàlla tamit aussi di feetal si tiset bi muy borom gàmmu gi ki waral gàmmu gi moo ngi nii moo woote boo taxit bi ngeen dikkee ngeen jox ci tiset yi vraiment dañ ci kontaan rek waaw dañ koy taati sonal. Mhm. jërëjëf. waaye fekk naa ko musal sol gaay waaye fii moom euh, mi ngi noonu Serigne sol nga sa tiset ba pare de. yaa ngi ci télévision bi Malikia TV leeru ma waaw xanaa kontaan si ñoom rek gis nañ gàmmu gi ni ñu ko taxawoo. bëgg nañ ci ñoom bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla na leen yàlla yokku ba yëg ko mu gën a saawan nga baawan télé bi jëm sa kanam incha allah. jërëjëf Alaaji Malick bi bàyyil mu wàcc ah, solo nga sa t-shirt ba noppi yaa ngi nii ci Zawiya Cheikh Seydil Hadji Malick sol t-shirt am looy wax nag tey waa Malick yaa waaw kontaan trop di leen ñaanal yàlla yokk leen si barke Seydil Hadji Malick si barke Gàmmu jërëjëf شيخ قيل بالعكس جل الله ذو الكرم

xamnu la moo daan ay ay années 90 80 ñu koy mëna am à travers Malick TV en collaboration avec la RTS vraiment dañ koy jaajëfal. kon yow tu as suivi la collaboration entre Malikia et la RTS. man amu beneen télé bu Maliki ak Asfiya yi man Seigne Abdou Aziz Alamine moo jox tarixa bi man lepp lu jëm ci mission pour kër gi ci lay dox té ginnaaw ba dañ daan waliyaan dañ xol yeneen télé bu pour ñu jox ñu mirum Seyd Hadj Malick ñu leen ba am ñaari télé du benn tour Malikia TV leeru mawdo kon amuñu lu mënuñu lu di xol par programme du matin au soir nag lépp lu fay am dañ koy jot surtout nak ñu nek ay sponsor Pape malik bay émission wooteel ma wooteel ma way bi sax ngoon bala moy dem dañ ko dañ koy envoyer ya. ñu bok tamit groupe WhatsApp Malikia TV ak soxna ma dem bok bokk si sen seen techniciens yi vraiment ñu ngi kontaan bax bax continue ma Malikia TV di proposer jere jeuf mbokk yi ñoy ngi gis fii métti na ndax ñepp bëgg am t-shirt eh, wax deug yalla mënu ñu wax ñepp ki ki soppe Malikia TV la mu yuuxu na ma ba sonn soxna si noo tudd ak foo jóge ak noo gisee télé bi. jaal gi laa tudd dëkk Touba sopp leen rek moo tax ma ñëw ci dëkk bi. barke yenent bi. sëñ Babacar Sy Mansour ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla oyofal yan bi fi mu bëgg a eggale tarixa bi yàlla na ko yàlla eggali foofu di jaanal sëñ Mbaye Sy Abdoul Aziz ak njaboot sëñ Hadji Malick yëpp di ñaanal mboolem mboolem mboolem mboolem mboolem mboolem doomu aadama ñu ngi di ñaanal di leen sant di leen gërëm gàmm gi nag fierté la pour ñu ñëw fi yàlla may ñu fekkee ko am na ñu ko fekkee woon daaw te fekkee woon ko ren ñun yàlla bu ñu mayee ñu fekkee ko ren dañ ciy sant yàlla bu baax baax di ko gërëm di ñaan na képp ku fi ñëw yàlla yàlla faj sa aajo ku fi indi naqar wala feebar yàlla na ko yàlla faj suñu borom mën na ko yàlla yàlla doole yàlla yàlla kàttanal yéen tamit waa Malick TV ñu ngi kontaan ci yéen di leen déglu yéen ñuy gindi yéen ñuy jaaj wasalaam di leen ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla yàlla doole kàttanal leen jërëjëf góor gi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la laaj ñoo tudd ak foo jógee ndax yaa ngi suivre la télévision Malika TV leeru Maodo bi nga xam ne ñëw nañ fii tey ngir jox nit ñi seen participation ci gàmm gu muy ay t-shirt yu ñu jox mbokk taalibe yi. fa tabaarakallaahu ñun ñoo ngi dëkk dëkk bu ñuy wax Mbuur ah ñëwoon fi nag tey ci gàmm gi gàmm gi nag lépp luñ ci xam rek ci Malika TV lañ ko xamee non seulement événement gàmm gi sax waaye am njàngale mu rëy lañ ciy def lañ ciy jàng. mu rëy lañ ciy jàng ci wàllu diine ak ci wàllu taxawaay sa digganteeg doomu aadama nekk nit tabaarakallaahu muy eh, télévision boo xam ne bi taalibe yëpp war nañoo ñaan yàlla mu yokk taalibe yëpp war nañ cee def seen poos seen xalal mu yokk jëm ca kaw ndax xamul lu may lenn war nga koo fonk loo xam ne lii lépp lu sa kilifa wax wala mu jëf ko ca lañ koy ca lañ koy jaarale nga xam ko wala nga gis ko boobu tele ñëpp dañ ko war a fonk ah gi nag sant nañ yàlla bu baax ndax li Sëñ Mansour day kaa leen wuyu ku leen woo ñu ne Seydi Hadji Malick lu mu leen doxee mu ne màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yomb naa lay yàlla nañ ko fekkee déwén yu bari yàlla na ànd ak yokkute ànd ak wér ànd ak jàmm lépp lu fi waaye allahuma yàlla na ko yàlla nangu te sotti ko ci réew mi yëpp yàlla sotti fi jàmm sotti fi teraanga sotti fi xéewal monsieur ñu lépp luy lore jërë ngeen jëf dasisun gayru muttan Serigne euh, ñu ngi lay nuyu di la fekk la fii ci Zawiya Maam Cheikh Seydi El Hadji Malick ñu lay laaj rek naka nga gisee taxawaay Malikia TV. waaw seen taxawaay rafet na lool lool taxawaay na lool set bi rafet na lool waaw. di ñaan yàlla gàmmu ñu fekk ay déwén yu bëri en ñu ñëw li ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu. di xalifa bi yàlla may ko gudd fan ak wér. waaw di bàyyiloo gars yi ci xel rek ci gàmmu gi ñi xam ne amul foo gàmmu. mu a ñu ñibbi. ma sama mbokk Gambien bi nga xamante ne moom la ñu woowee Fatoumata Malika TV leeru Maodo noonu lañ ko tuddee Fatouma Malika TV leeru Maodo ñu ngi lay nuyu di la ziar. naan la ziare ku ne kenn ku ne si ma ba si lool. di nuyu Seydou euh, Thierno Seydou. yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom Pa ñoom Ngaye Mbaye. Ba Moutar Kébé Seydou Ba yéen ñëpp maa ngi leen kii liggéey si télé bi rek maa ngi di nuyu di leen ziare di leen wax bëgg naa doon a gis trop nag. jërëjëf waay kontaan naa tey trop bu ma jàkkaarlee yow. macha allah maa kontaan trop. moom soppee Malick nekk ca Gambie waaye tam ñoo la gën a sopp jërë ngeen jëf jërëjëf. maa ngi toog di la seetaan rek kontaan si sa affaire trop kontaan naa de jërëjëf waay yal na yokk tere bi. kon nag ñu ngi jaare foofu di nuyu mboolem téléspectateur u Malika TV yi nga xamante ni ñu ngi nekk foofu ca Gambie ndax ñoom. partenaire télévision bi lañ Malika TV lu xew Gambie directeur général wax ni nañu dem taxawé ko jël ko du début à la fin ñeu tek ko ci télé bi kon nak euh, ñu ngi lay yóbbante yow tam nuyoo ci waa Gambie yëpp incha jërëjëf. مالنا قبل النساء صدقت أولاده خرجوا منها سوى البدر إبراهيم ذي الوذا mbokk yi euh, lii moo euh, remise de t-shirt yi nga xamanteni mom moom la équipe bu TV leeru Maodo tambali di def dinañ ko égalé ci kanam way rek ñu gërëm ñi nga xamanteni ñom lañu andalon ñuy commission ordre te tey ki ñu équipe bi ñu andal alaaj Balla Soare nekkoon euh, chef d'équipe bi ñu and ak ñom malgré xataay bi ak tàngaay bi jappalé nañu ba ñu t-shirt yi dans des conditions très difficiles wa yalla def na sutromé dañuy comprendre nak xamna ne ci gamu lañ nekk te ren gàmm la bo xamanteni tok na ñaari at amul motax tay. ku ne gis na ni nit ñi namoon nañ xadara bi ñëw nañu siif nañu sax t-shirt yi waaye nag lépp yiw la ñuy ñaan yàlla yàlla may ñu eggalee ko suñu sago kon ci kanam incha allah dinañ dellu si waat aoudu billahi min بسم الله الرحمن الرحيم arrahim يوم الدين الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعدوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم macha allah ah wa dëgg yàlla ñu ngi rafetlu lii ndax eh, ku xam Malikia TV ñëpp moom lañuy ñuy seetaan wax dëgg yàlla waa Tiwaawoon bëgg nañ ci yéen waa cees ak ñëpp ñi nga xamante ni mboolem jullit bëgg nañ ci seen télé bi. li ngeen bëgg yàlla nañ ko yàlla defal ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen directeur nag allah Alaaji Maxtaar al amin ñu ngi lay ziar di la wax ni wallahi la azim fi nga jàpp foofu la te bu la ko fi dara dindee. ci barke Seydina Muhammad dinaa la defal ñaan incha allahu taala suñu borom moo xam ban ban ñaan rek mooy nangu mooy ban làmmiñ mooy nangu incha allah. auzu billahi mina shaytaani rajim اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك تدار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا هو سرنا هو نورنا مجدنا وهو المشفع عند يوم خصام مولانا هو سرنا هو نورنا هو مجدنا وهو المشفع